na nga def ça va kii mooy Binta sama dom mi ça va waaw. Binta. ki moy ummi dang nga koy jàppee comme sama désormais mom moy gérer keur gi puisque damay tukki té damay xawa a mhm. am nga université ubbi té da nga wara dem. wa légui na mom mo fi dess d'accord à partir de tay ubbil magasin nga wan ko daara yépp nga wan ko d'habitude ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy défé suñu kër. comme ça suma démé mom moy gérer. mu xam lépp lu mu war a def ci kër gi parce que à partir de école tijji na ba pare kenn desatu fi moom rek moo fi nekk moo fi ñëw bees umi yow tam nga jàpp fii comme sa kër man nekkuma fi mais bintaa mu ngi fi ak papaam ak rakkam yu góor yi loo soxla rek laaj ko moom waaw maman ah, jàll muy togg tous les jours ah togg bi de xanaa añ bi moom si moom la dépendre parce que moom rek moo fi añee yaa ko loo bëgg añee rek nga añee ko parlant de añ sax xam nga tegaguma añ ba léegi. ay jugal gaa mi ngi naaj te man dama teg diwlin te ñëw bu ma paree waxtaan bi ma. Oh, mais damaa nga def kër yi comme sa kër nga jàppee ma comme sa petite sœur. loo soxla rek n'hésite pas woo ma dinaa sama numéro téléphone comme ça loo soxla rek nga wax ma. ñu ngi jàngi école. Ah, ñu ngi lay dimbali ak yooyu. ñu ngi waxtaan. jot na la expliquer tuuti ci kër gi. waaw ah waaw d'accord. Ah, nag lan la mone bi. tey jii c'est bon xam nga moom damaa sonn ci togg bi dama koy def bu gaaw rek sebon rek laay teg tey. Ah, kon baax moom nar la neex. non non dama yàkkamti déjà am na quelques papiers yu ma war a dem jëli bureau ba ba pare. Mhm. wala ñu dem aéroport donc il faut ma gaaw tuuti gaaw a pare. moo tax sama yaay ak la de liggéey rek femme la. Mm. nit ki moom looy def rek moom da ngay gëm sa bopp waaw muy liggéeyu kër. muy liggéeyu bureau. muy fay jaay sa marché ba. nit ki moom da ngay ñax rek jëriñ. waaw la lay jëriñ yaa koy jëriñ yaa koy moo tax mooy sama idole may def rek ci moom laay xool. royukaay la na ngay roy ci moom. Mm-hmm. encore une fois daal moom. teg naa ginnaaw yàlla. Mm-hmm. dénk naa la kër mm-hmm. moom xam nga xale yi tey jii moom. gis nga ak weewam yi mu yar amuñu benn njëriñ. jàng ba. ñoo toog seen portable. jeex na donc li si des daal yow laa ko dénk incha allah. waaye dafa mel ni am na luy feeñ de. hey diwlin tegoon. ah yaay nga toog di wax rek. baaru tàkk. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi man la major Oumar Diop Mbaye bu brigade nationale des sapeurs pompiers tey nak dañoo ñëw pour waxtaan ak yeen ci accident domestique yi mën am ci kër yi. Euh, ndaw si dafa teg diwlin bi dugg ci saa bi di waxtaan donc waxtaan boobu yàgg mu xaw a sàggan bi mu ñëwee fekk diwlin bi tàkk. bi mu gisee diwlin bi tàkk mu yuuxu ànd fi ak sagoom heureusement que doom ji ànd ak daal ñëw gis tàkk-tàkk bi bi mu gisee tàkk-tàkk bi. li mu njëkk a def mooy dafa ànd ak dal dem couper gaz bi couper gaz bi nag li ñu ci wut mooy que toujours gauche bi dañ koy éliminer maanaam gaz bi su ko noonu di tàkk tàkk tàkk bi day gën a continuer bi mu couper gaz bi après dafa gis kubéeru cin bi mu téye kubéeru cin bi kubéeru cin bi nag dafay assurer protection en même temps ci ni mu ko téye dafay protéger loxoom dem ba ci cin li ak dal tëjal ko bopam bi ko tëjee nak da ngeen gis ne lakk bi fay na lakk boobu nag ni ko fayé daf ci procédé nu ñuy wax ñun étouffement manam dafa melni lu xoj lakk bi ndax lakk pour mu am ñetti élément yi ñoy and manam euh, li tak ngelaw li ak likay tankal donc likay takal donc mom nak ngelaw li le dindi ci tak tak bi motax lak bi fay waye lak yi buñ ko gisee ci kër yi toujours buñ ci deful xam ni mën nañ ko fay mën na jur njombe njombe bi mën a jur nag mooy que waañ wi mënoon naa jàpp ba kër gi jàpp gis ngeen ne lii nii du lu jafe donc euh, ànd nag dal fay ko ak dal liñ ci bañ nag mooy que lu tax bu ñu ngeen def ci ndox parce que boo leen ci defee ndox ndox mi dafay yokk safara bi waxu waruñu ko daw aussi di jël cin li di ko di ko di ko génne parce que cin li boo koy génnee li ngay yàkkamtee di ko génne mën na tuuru lakk la mën na tuuru aussi yokk lakk gi ci ci biir waañ bi donc toujours dañ leen di ñaan dañ leen di ñaax rek ngeen ànd ak dal ci loolu aussi am na beneen appareil bu nga xam ni mën nañ ko am parce que moyen d'extinction lañ koy wax ndax bu amoon extincteur co ci biir mbawaañ wi moom dina mën a jël extincteur bi fay lakk gi ak extincteur bi ba pare continuer taal bi mais extincteur bi nga xam ni par exemple nii mënoon na ko def ci waañ bi su ko ci defoon donc dootul amati euh, pour tour maanaam li mu doon li mu doon togg am na kubéeri cin bi su ko gisul woon mënoon na jël morso feberekaay bi bu fekkoon mu ngi ci waañ bi wala bépp morso daal boo xam ne nilon euh, du nilon parce que nilon boko ci boko ko boko utiliser mom sax dafay yokk lakk gi donc nek morceau coton bo xamni daf koy dugg tooyal tooyal bi nak luñ ci djublu moy bu ko tooyalee ngelaw dotul mën a donc mu jël ko dugal ci ay loxom parce que aussi boy fay da dafay laaj yow ci sa bop nga ar sa bop say loxo nak na dugg ci bir morceau bi ba nga xamni ni sa loxo du mën lak nga dem dank ba ci cin tëj ko bo ci dëppee morceau bi rek da ngay gis ne lakk bi dina fay lakk bi su fayé nga bàyyi ko mu refroidir donc lolu du lu jafé lu nga xamni la par exemple ñepp buñ ko xamé yenn tak tak yi dotul amati ci kër yi ndax li ñuy utiliser chaque fois mm, ci kër yi e, togg yeeg yooyu yëpp dina des fois mu am ay incident mais incident yi jàpp leen ne ki njëkk a fekkee su àndeek dal rek dina ko mën a saafara te du jar woote te du jar yàq dara liñ ci bañ nag mooy que lu tax bu ñu ngeen def ci ndox parce que boo leen ci defee ndox ndox mi dafay yokk safara bi wax waxu waruñu ko daw aussi di jël cin li di ko di ko di ko génne parce que cin li boo koy génnee li ngay yàkkamtee di ko génne mën na tuuru lakk la mën na tuuru aussi yokku lax gi ci ci bir wañ bi donc toujours dañ leen di ñaan dañ leen di ñaax rek ngeen ànd ak dal ànd ak sang froid pour que lii su xewee ngeen xam ne du lu lu ñu mën a saafara la soxlawul nit di ñëw yow mi fa nekk bo ànd ak dal xool ni ñu ko defee ci film bi parce que film bi ni ngeen seetaanee eh, action bi ku jigéen ki def dal moo tax mu mën ko fay donc accident yi mel euh, toujours nañ jàpp ne commencé eh, fay ko mais suñ ko fayul rek mën indi bu nga kër gi lépp indi pour donc émission sapeur pompier ak RTS leen émission euh, secours d'urgence le tout ñu ngi leen di jox daj thank you